Oh, laa ngay dégg oh, ah non non non nee na man ndax moom ngeen def la public ñu rek retaan Omar oh, naa ma ndax am garab bu mu kenn soxlawu ko fii bi nga soxla Ablaye après bàyyi leen li ñuy wax Ablaye kii la Ablaye Diallo Ablaye Diallo li ñuy wax ci ko waxaat ci kaw daf pour produit la pour góor yi. Ah, moo ma maa yoroon maa géré woon pub bi. ok mooy laaj na nee naa saw la man la jox wax. Ah, ah non non mi ngi noonu ñu dem jëli ah. euh, rubrique. otul bu amee borom kër nga ñëw ma jox la ci bu la laay takkee. Aïcha Mamadou Diouf. jël nañ ba pare jël nañ ba pare ayca kon ma jigéen tey école des jeunes mariés nag dañuy waxtaanee eh, góor ñi nga xam ne joxuñ cër lool seen i soxna yi maanaam góor yi nga xam ne eh, tey bu ñu waroon jox seen soxna yu benn dañuy préféré jox ko seen gel mu nekk loo xam ne eh, su <laughs> ma jigéen balaa suka bu nekk loo xam ne ma jigéen euh, dañ koy faral di gis surtout nag balaa ngaa gën a mën a ràññee événement yi jot ndax nag sëy yii nag balaa ngaa gën a gis sëy yëngooti rek événement lu mel ni korité wala tabaski jot parce que jigéen bu nekk bëgg na euh, jëmmal boppam bëgg na defar boppam ba nga xam ne euh, day soxla yenn kii pour matériel yi pour daal di mën a jongama rek daal di bëgg àllaaji mais ñu bëri dañuy faral di xaar ba tabaski jot door mën a defaru mais ñu am na ñoo xam ne tamit korité ak tabaski yëpp dañuy solu mu nekk loo xam ne soxna dañ koy soxla seen biir kër mais góor ñi ñu bëri dañ leen koy jéem a bañal man bañu ma nga bañal bañ a xotti sa sox soxna mais ci kaw fekk mënoo ko wala yoroo ko bien vrai que sax korité yëfu xale la parce que yu bëri dañ naan korité yi xale yi en général ñooy xotti mais ci kaw boo ko mënee yor ko mën ko yéene ko sa soxna yoon la nga xotti ko parce que loolu kenn terewu ko kenn moomu ko parce que yaa moom a xaalis yaa ko liggéey boo sa jabar yoon la mais dafa am ñoo xam ne euh, kii euh, ma jigéen démb barki démb am na koo xam ne moo ma envoyé benn message ne ma man balaa ma gën a sentir na sama jëkkër bëgguma rek événement di jot si parce que en général daf koy bett muy doxaan lu bëri mais li ko gën a métti barki démb dafa gis message boo xam ne ne jëkkër ji moo envoyé parce que am na coro boo xam ne ñu ngi koy wax ne euh, ku góor ki daf koy doxaan si koñ bi moom yàgg na xam lool mais taxut mu am problème ak jëkkëram mu nekk jigéen boo xam ne xam naa ko bu baax muy jigéen bu mën a muñ jigéen bu mën a mën a suturaal waaw jigéen bu mën a suturaal borom këram parce que mais gis na ko sax mais taxul taxul mu attaqué jëkkëram taxul mu attaqué xam nga jigéen dafa dëj kumpa liñ naan góor téléphone góor ma ne Ndeye Ndiaye wax na ko neen téléphone góor soble la booy laal di jooy voilà mu yëg boo ko bul xool. non non mais moom am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne son yi bu sab nañ sab goo xam ne wala dëj nañ kumpa goo xam ne. foo foo jaar bu nee tiit ñu yóbbu. waaw loolu day am ci ay nit day am ci ay nit malheureusement nag mu gis loo xam ne neex ko parce que léegi boo envoyé message bi yëpp da ngay gis tur beeg lépp ak lépp moom nee na loolu da koo def benn métit boo xam ne parce que lu gën a bon ci ci ci ci ci ci ci ci dund gi mooy nga génn di jaay sàmba alaar te yow sa biir ka la la fa war defoo ko yaa ngi envoyé say gel ay xaalis pour lan pour ñu jënd ay perruque pour ñu jënd ay geref ay ay ay yére yoo xam ne pour korite gi la te yow sa soxna bi nga xam ne yaa ko jëlee kër ndeyam ak kër baayam andi ko sa biir kër nga war koo toppatoo toppatoo woo alaar weesu ko ma jigéen mu nekk loo xam ne dafa ñaaw parce que man gis nga góor boo ñëwee di ma doxaan si sax ah boo am na yenn waxee boo ko wax sa jabar duma la nawloo te duma mësa sa yow parce que dama naan ki nga xam ne toppatawul jabar faalum jabaram man duma ko nawloo parce que góor dëgg-dëgg balaa ngaa mën a am cër ci sa gel sax ñu wala sa gel sax ma gën la am na nga sagar sa jabar toog di wax lu baax sa jabar dafa góor ñoo xam ne dañuy dem di yàq seen jabar góor ñoo xam ne faalewul seen jabar lijjantu seen jabar yi fi ñu teg seen gel maanaam bu nekkoon sans seen jabar tollu fa sax euh, ci 2 pour cent wala 3 pour cent mu nekk loo xam man dama naan est-ce que góor ñi sax ñoom ñu ngi ngi nekk mais des fois nag ma jigéen dafa am loo xam ne dañ ko ciy gis muy loo xam ne des fois dañuy gis xale bu góor boo xam ne day topp ab di ko defal lépp di ko defal lu ne ñu naan moom kat faaleeku soxlaam soxnaam lijjantiwu soxnaam te boo demee nag boo xoolee ba ci biir déglu ma rek boo dee boo xoolee ba ci biir boo xoolee ba ci biir ku la yëg nga topp topp ku la yëg nga topp topp waa dëgg la loolu laa ma ne boo demee boo demee ba xool ba ci biir waa ji tayu ko sama genre gi léegi dañoo am fit ma jigéen buñ xamee ne yow mën nañ ci am benn cent francs la benn 10 000 francs boo xam ne mën nga leen koo jox sax yow jaral nañu dem ci sëriñ yàq la te di gis ñoo xam ne ñu bëri ma jigéen ñu ngi koy def mais du seen tayeef jigéen ñi léegi dañoo am fit man bañu ma sax kuy dem di di di foofu di di liggéey di di foofu nga baal ma ma doguma la mhm. damay àbb kàdd gi saa ko doon wax des fois du liggéey de boo yàppaare boo jàppee ni góor ñi dañoo dof dofuñu non dama des fois des nga jàpp ne na jàpp ne liggéey nga ko góor ki non non ah liggéey non xaaral rek xaaral gis nga des nga jàpp ni ah. dañoo liggéey ku góor ki ba li muy jël di ko jox ndaw si mhm. tayu ko mhm. fekk moo ko tay de day investir ci ndaw si investir la ah. yow investir sa jabar nga investir ndaw xanaa balaa ngaa génn génn kii déedéet non xaaral rek du mhm. investir du loolu de exemple nga baal ma damay gis di di bëgg a caaxaan ak moom mënul nekk ma xool xool mënul nekk léegi pour loolu mën a am il faut ma investir ci yow. su ma xoolee xool ne sa point faible xaalis la. yor naa xaalis dama koy investir ci yow. Mhm. mais boo ko defut sa jabar mais non non non pour côté liggéey bi laa bëgg wax. Ah, lépp loo xam ne lépp loo xam ne da ngay jàpp ne su ma la ko joxee sooy mi dafa la wala la koy defal. pour la dafa am lu bëgg ci yow. bu ko defee sama jabar sama yaay samay xarit dañ naan sooy mi dañ ko jàpp ñu kii xale bi da koo liggéey fekk moom moo liggéey xale bi bëgg koo caaxaane kan moo liggéey xale bi yàq tamit non est-ce que di lu góor da nga ñëw pour lu la bëgg mais loo koy liggéeyee non li ma bëgg comprendre mooy bari na lu góor di def ci jigéen ku góor ki moo ko tey dafa am lu mu bëgg te pour mu am li mu bëgg faaw mu nangoo vider boppam ci mhm. xaalis bañ jàpp ne kii dafa dof mhm. ndaw si da koo liggéey tayul li mu nekkee mhm. mais dafa am lu mu bëgg bu ñuy fett di daw seen yoon ñaata jigéen nga gis ñu teg leen ci ay conditions yu baax. Mhm. ba seen famille naan mais xanaa kii dañ ko marabute xanaa kii wér. Mhm. mais après bu demee demaat demaat da gis ñu bàyyi ndaw si. waaw dama la la loolu mooy dugal cagatu gu bari ci ay jigéen parce que dem ba sànni ñu yàlla mënuñu ko attan dañuy jël euh, Omar jël laay jël soaay bu parce que bu ñu ko deful du sotti benn waaye ko jëloon en charge mhm. waa ji dem na. léegi nag dugg na ci ak ndóol faaw mu cagatu. waa ma ne la man yegguma sax ay kàddu googu yaa fa yegg. dama ah, lay wax dama dama teg sama tam dama la. waaw góor ñi nga xam ne maanaam seen gël lañ gën a favoriser que seen jabar yi. waaw léegi ma ne la am na si ñoo xam ne ñu ngi koy def mais du tayeef danga may nangu loolu waa wala déet. Hmm? du tayeef du tayeef. am na ñoo xam ne ñu ngi koy def nag ngir bon am na ñoo xam koy def parce que dañoo bëgg ndaw si am na ñoo xam ne dañ koy def parce que faalewul seen soxna mais am na ñoo xam ne dañ koy def mais tayuñ ko sooy bu majeur li may wax nii dama ko gis dama ko xam jigéen laa te jànq laa ba tey. wala du ma jeex du ma jànq. jéeg nga disket laa ah, jànq laa ba de arrêté. ci disket yi laa boo xam naa xam naa seen pexe benn xam naa seen pexe ñaar xam naa seen fii xale bu jigéen yoo fi gis yu bëri la major gis nga bu ñu amee si yow bi yenn cofeel mu leer na la seen intérêt mu ngi ci yow dara na leen yóbbu ci sëriñ gis nañ ko fi am na fi mais man loolu dama ko contre man su ma dem liggéey xanaa ma liggéey sama jëkkër moom damay liggéey jëkkëru jaam am na ñoo xam seen borom kër yi di leen mais buñ xoolee ba ca biir seen jëkkër tayut li ñuy def ok xam ne bu dee ni yow da nga teg thème bi ba pare bëgg ni tay ñu ko mhm. kon koy jaratuloon ñu non non dama la ne ñenn ñi nga que dafa am benn dama expliqué ci début bi lan laa wax loolu dégg ma Omar ci début bi lan la wax góor ñi nga xam ne faale wuñ seen soxna ki ci mel ni kooku noonu yónnee xaalisam ki nga xam ne moom moo di gelam bàyyi soxnaam xottulu soxnaam faalewul soxnaam man la kooku faalewul jabaram lijjantiwul jabaram parce que dafa gën a favoriser gelam loo tuddee lijjantiwul jabaram lijjantiwul jabaram kay ah lu tax du toppatoo jabaram ko ma loo tuddee ñàkk a toppatoo ñàkk a toppatoo mooy lu tax ngay dem di jël sa gel di ko xottil ko tabaski bàyyi sa ah, jabar loolu du yoon ah, loolu du yoon loolu du yoon am na ñu xam ne dañ koy def ndax seen Eh, yow baat li nga mën a toppatoo sa bopp tax nga bëgg a xañ xale jigéen xam nga diidi am na loo xam ne baaxul man nu mu mën a toppatoo xaaral xaaral rek xaaral gis nga jigéen bu mën a toppatoo sa bopp rek eh. après di yàqal jigéen ñi naan bu ñu toppatoo ma ne ku am xale bu jigéen nga bëgg ko am projet dama la ne man fekk tamit nga toppatoo ñi ngi toppatoo seen jabar yi bàyyi leen loolu góor goo fi gis muy jox jabaram lekk di ko jox jabaram naan bu guddee mu jox ko dooleem loolu na góor ñoo xam luñ bëgg am na góor ñoo waaw ah, loolu jox lekk jox naan rek mooy mooy jox man ba ma joxee lekk di ma jox naan te joxoo ma cër ba war déglu ko lu lekk naan du cër loolu cër ay cër ana respect. yow mën na toppatoo sa bopp daal di xale jigéen kenn di la toppatoo da ngaa soxore yow ku soxore xale jigéen yi nga non non yow da ngaa xale jigéen yi doo bàyyi ñu toppatoo xale ku ci am coro mais mais mais kii euh, ku ci am xale bu jigéen nga am ak moom projet pour takk ko soo ko mënee dimbali doo ko dimbali. dafa fekk nga dimbali sa soxna ba pare eh, man ak Ablaye ci émission bi la bokk ak. na fekk nga dimbali sa su ma ko toppee du ngeen wax. <laughs> mais xam nga euh, euh, li jaaduwul benn. mooy góor bu koy def pour man investissement à perte la. kese d'accord non bu dee da ngay caaxaan nag moom ma d'accord rek. investissement non non parce que euh, parce que bu dee ni bu dee ni soxna. def ci hmm. soxna moom moo gën a wóor. kese parce que soxna boo investir retour sur investissement la. Mm-hmm. maanaam ki ngay defar sa alal la. kon yaa ngi mel ni kii def sa bopp pour man booy def sa soxna. léegi ki nga bëgg a takk nag. yaa ngi mel ni ko kii def sa doom léegi ki nga bëgg a takk nag bu dee ki nga investir ki nga bëgg a. non bokkul bokkul xam nga na yow. loolu kon yàq la loolu kon bëgg a xam loolu yàq. non xam ne man fi di di waxee nag comprendre na de. man fi di man man fi di di man fi di di waxee laay waxee. Mm-hmm. maanaam bàyyi sa soxna dem di defal benn jigéen jaaduwul mm-hmm. parce que li naan bu mbaam neex duufee neexi tan mm-hmm. loolu dëgg la parce que koo xam ne tey jii bu tëdd jotee moo lay tëddal bu fóot jotee moo lay fóot bu faas jotee moo lay faas lépp lu war soxna bu lekk neexee moo ko togg ñëw dijal la doom yi nga yor mu moo leen toppatoo toppatoo moo leen jur kook pour man booy def ci moom yaa ngi def ci sa bopp yaa ngi def ci sa njaboot kon mm-hmm. d'abord def ci sa soxna moo li ko mooy li gën a wóor mooy mbaam bu duufee neexitan parce que li ngay def ci moom yëpp day dellu siwaat ci yow mm. pour man defoo foo war te def pour mm. man loolu moom dafa war a doon lu war parce que yaa ko jëlee ci te jigéen seetlul ni boo ko takkee rek mm. xañ nga ko wërsëg mm-hmm. léegi si sa wërsëg yow la war di wéeru parce que kaka daan may du ko mayeti mm-hmm. ñaka daan dimbali ñu bari mën nañ di téye la parce que danaan léegi am na borom kër mm-hmm. kon kooku même woo wërsëg yi mu doon am ci waajur mu sax mun na lii lépp léppam yaa ko yor kon kooku tey jii waroo ko seetaan ci dara. Mm-hmm. ba yëkkati leneen di ko joxe. Mm-hmm. léegi nag leneen li ñu joxe feneen man ginnaaw ba nga joxe soxna ba nag mooy wërsëg. Mm-hmm. ñu bari dañu jàpp ni boo defalee keneen da nga bàyyi si soxna wërsëg mais bu rëyee rek ñëpp xaj ci man loolu laa gis. maanaam bu sa wërsëg rëy. bu yàggee rek ñëpp xaj ci. parce tamit loolu àdduna tamit boo dikkee koy wax àdduna loolu moom moo koy neexal. maanaam dafa war a yaatu. Mhm. da nga war di lii nii mais doo seetaan sa soxla mais nag dafa ci am ñoo xam ne sàmb àll lan mais am ñoo xam ne lii ko naan ker koo ni lan. Mhm. fa leen jëmbat duñ fa jariñ mukk ci àddina mhm. te am ñoo xam ne lépp jikkoy ginaar lañu yor. lu leen jegee dañ koy cof. duñ ko fonkati dafa am ñoo xam ne seen jikko la. maanaam lu ñu amul la ñu bëgg waaye lépp lu ñu am ba pare. fonkatuñ ko loolu nag des dafa am défaut ci yenn. góor yi mu loolu tax ñu sàggane seen i soxna dem di dimbali yeneen jigéen mais jigéen ji suñu borom dénk mu lay jural sa njaboot dafa am loo xam ne bu la koy dénk da nga ko war a woddu ko mais aussi yor ko loo xam ne dundam la suñu borom dal la nattoo yow mi borom kër nga yor ko kon kooku waroo ko ko jox ñeneen quoi mm-hmm. euh, sëñ mu li nga xam ne moom mooy waxtaan bi tey en tant que góor est-ce que rafet ñeewul sa aaw du bëgg a doon sa ñaareel mu ngi noonu man man ma ñeewul sa aaw merci rek est-ce tey rafet na en tant que góor euh, ngay gis sa moromu góor au lieu que mu njëkkeel nga xam ne defar moo di soxnaam muy defaral gelam bàyyi soxnaam est-ce que loolu rafet na. waaw man xam naa du ma du ma du ma expert ci ci ci. ci kii bi. Ablaye Ablaye xanaa amoo soxna. Euh, non man amaguma amago amaguma soxna. mais xam nga bu carte bi génnee quoi pour nga mën a seet signer certificat de mariage. non ñun xam naa dañuy focus ba deux mille vingt quatre rek. Ah. ah ngeen doon takk. soo takkee doomu jàpp danga koy sonal heure bi rek naa génn fii léegi ñu jàpp ma yàlla baax na gars yi dañuy jàppaate rek maa ngi nuyuwaale ñu nekk ci kaso yi di hmm. ñaan ñu libéré leen nu mu gën a donc bon comme am nga ñun tamit comme en droit rek dafa am lu ñuy wax le principal et l' accessoire hmm. le principal mooy fond bi mooy d' abord ci li nga war a njëkk a investir mooy priorité bi hmm. tey loolu man mun naa ko jàng tey ci sa thème bi maanaam man je ne comprendre am jabar war ko parce que dafa am ay conditions yu l'islam teg quoi. da nga koy dëkkoo dëkkal ko xawma ak yeneen ak yeneen woddu ko cest à yooyu noonu yëpp da nga ko war a matale ci sa jabar ba pare maintenant soo ko matale sa jabar nag. vu que yow jullit nga te yow euh, li ci diine bi nga bokk dàquñu ba nga am ñeenti soxna. nit tamit sooy bëgganteek moom foog nga amal ko njëriñ. ci bëggante bi rek ñun ñii rek amaguñ dara. Mhm. tegeeguñ dara mais xam naa ñu mel ni man pas man nag parce que amaguma. mais ñu mel ni man su ñu nekkee ci ngoro rek korite su jotee ñuy jënd yére tabaski su jotee te takk ñu xale bi mais ñi ngi investir ci xale bi mhm. donc léegi xale yu jigéen loolu la ñu exiger mënatuñ ci dara mhm. mais mais en tout cas quoi qu'il soit man je pense que jabar moom moom mooy comme ni nga ko waxee sànq sànq rek mooy primo mhm. moom moo nekk au-dessus de tout le monde donc mais man dafa am lu ma xaw a jaaxal ci réew mi sànq yaa ngi koy wax mais man réew mi ñu ci bëri ay jullit lañu te ñun ci diine bu ñu bokk charia dafa ne soo mësee waxuma nga am jabar sax à l'instant de mais soo mësee am jabar wala nga mës am jëkkër rek nga nga mooy yàlla rek rey mooy sa mooy sa mooy sa at mais léegi réew mi da gis ko am jabar di wër di mooy altine ba dimanche <laughs> waaw jël ay appartement dugal fay jël ay appart maanaam mooy comme ni nga ko doon waxee sànq rek maanaam di am na ñoo xamante ne bëgguñu soxna euh, ndaw si pour takk ko mais comme te dañoo bëgg a foo te foog ñu investir ci ndaw pour ñu am pour ñu def loo xamante ni dina mën a téye ndaw ci ci ñoom parce que mënoo bëgg a foo ak nit ba pare te yoroo koppar boo ko jox bu boobaa day dem mais diine boobu tamit da daam lu ma koy confirmeel euh, euh, kii Gabriel kan xam nga ko Gabriel waaw dama koy dégg Gabriel non non Gabriel dama ko bëggoon takk mais après ñoom Sadio ñoo ma ci génn ak Assane <laughs> Gabriel Kane man maa ko seetaan mu ni moom wujjantewul ak benn jigéen ne seen xel dal mhm. mais jëkkëru ñi mu nekkal da leen di àbb maanaam daal ku mu àbb sa jëkkër dala koy delloo maanaam loolu mooy boo ma àbbee ñëw après ñu bégee nga dem sa yoon. mais imaginer ku mën a toog wax loolu ci am réew maanaam na seen xel dal waaw muy na seen xel dal door sa ma ak yéen damay àbb seen jëkkër après ma delloowaat leen non mais waru ko wax mais c'est grave le respect ñàkk respecté jigéen waaw damay àbb seen jëkkër àbb kay mooy da àbb def lu kii après damay rejoindre Pape Abdoulaye man je pas contre nit am coro mu mu defal ko parce que ki nga nar a takk moom moom ngay jël sa xaalis di investir si moom mais day fekk d'abord yow nga nga nga nga nga toppatoo sa jabar ba noppi parce que balaa ngay génne di defal mooy comme nga yor sa xar bi nga jënd dem jënd ko ñëw indi ko ci kër gi di ko war koo xont xontoo ko nga génn nga génn génn gis xar bu nga xam ne buy buy buy buy buy buy buy ere ci mbedd mi nga nga nga bëgg koo nga bëgg koo xont xam nga loolu tamit ah, àndul moo tax ma may may may may may may doy na waar daal en tout cas euh, moo ngi noonu ñu romb la fa ma jigéen mu ngi noonu mu nekk loo xam ne euh, jamono ji da koy gën a gis ci kër yi waaye tam di wax bépp jég boo xam ne yaa ngi koy dund amal xolu muñ rek te xam ne te xam ne te xam ne rek euh, ki nga xam ne mu ngi def loolu tey yàlla mën na def ëllëg mu sëyi te ku nekk jigéen boo xam ne am na loo xam ne mu ngi koy def su yow euh, ma jigéen boo sëyee dinañ la ko fay dama koo gis <laughs> gisati ko ku jàpp jëkkër jàmm di liggéey ñu lay financé boo sëyee sa jëkkër dañ ko liggéey mu lay financé kon ma jigéen mu nekkoon loo xam ne moo di seen thème école des di la remercier di kontaan bu baax a baax di la wax ne ibaadu bi nag bu ko bàyyi jàpp na la merci beaucoup Didi Diouf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom di di Diouf ci école des jeunes mariés thème bi am na solo bu baax di jaajëfal tamit Omar ak invité am di Pape Abdoulaye Touré moom nag nekk activist bokk ko ci société civile ñu ngi koy jaajëfal moom itam di